dal leen ak jàmm ci Leral TV Leral point net tey jii ci mbir mi ak dëkk bi fu mu toll nii gannaaw condamnation Ousmane Sonko ci dossier de viol Adji Sarr Ousmane Sonko ci Sweet Beauté gi ñu xam ne verdict ga wàcc na ba ñu daal di condamné Ousmane Sonko ci deux ans prison ferme moom ak Ndeye Khady Ndiaye daal di xam ne affaire Sweety Bottegui Adji Sarr Ousmane Sonko mu jur ab coow gu ne gàññ gannaaw gi ñu daal di condamné Ousmane Sonko mi ni mel di xam ne Sénégal takk na ñenn ñi ñàkk nañ ci seen bakkan waaye liñ koy toppee moom Ousmane Sonko du sàkku waaye itamit du utiliser ay ngànnaay jëmale ko ci ki nga xamante ne moom la amal mbir ma waaye liñ koy toppee muy corruption de jeunesse laaj gu samp ñu bari xamuñu lan mooy corruption de jeunesse ñu indi leen ci ay leeral bu ñu sukkandikoo ci article 324 alinéa 2 du code pénal sénégalais loolu infraction corruption de pénal du leneen lu dul képp koo xamante ne yaa ngi séq ak wala ànd nga ak koo xamante ne xelam matul ca loola nga yàgg di ko def wala itamit mu nekk loo xamante ne loo miin lool la ci moom mu doon góor wala jigéen te ay atam toll ci vingt-huit ans maanaam ñaar fukki at ak benn wala sax mu doon ab ndëgëru lay mu doon mineur boo xamante ne seize ans dong la daal di am nag loi gile day daal di punir kooka ñaari at ba juróomi at prison ba noppi tamit mën na ko amender trois cent mille ba quatre millions. mu doon ab ndàmpaay bi nga xamante ne mën na ko jox ki mu seqal loola. loolu nag buñ ci sukkandikoo infraction googa day daal di protéger képp koo xamante ne yaa ngi bëgg na sa xal xale yi wala di leen foowee ci naka sudul noona muy jeunesse gi wala ñeneen ni nga xamante ne ñu ngi ci situation gu xaw a yéwén loolu nag bu fekkee ne nguur gi def na ko du leneen lu dul protéger li nga xamante ne moom mooy xale yi njàngale gi nga xamante ne ñun suñu maam yi moom lañ ñu loon fii ak i valeur am ba noppi tamit day doxal ci lépp loo xamante ne muy fondement société ak suñu nation gi ni mel. loola ci mbir mi ni mel luñ ko doon daal di toppee muy menance de mort ak ay viol muy sàkku gi ni di tëjee bu ñu sukkandikoo ci article 320 du code pénal sénégalais gi li nga xamante ne moom mooy sàkku bi nga xamante ne moom lañ ko daal di woon jiiñ soit boroom àndu ca wala ñu daal di ko bett wala mu daal di am ay menaces yoo xamante ne amoon na giñ koy daal di seq waaye preuve yooyu yëpp juge gile xam na ni mbir ma taxawul ba tax na condamné ko ci loola ci article yi mu daal di sukkandikoo moom juge ba ba tey jii waaye di xool ana itamit nan la koy mën a atte ci yoon ni mu ko daal di mayee waaye tamit mu daal di écarté li nga xamante ne moom mooy accusation de viol ak menace de mort ga yóbbu ko ci infraction de corruption de jeunesse ba tax na tribunal gi décision gi mu daal di rendre décision bu équilibre la ci ñoom. moo tax it gannaaw gi ñu daal di prononcé pen gile muy peine minimale de deux ans de prison même sax bu fekkee ne accusé ba teewul woon ci ndaje googa. te loola day wone dong ni ñu daal di xalaatee ci juridique maanaam ñu teg ko daal ci yoon ci yoon dong ñuy wone bi gi nga xamante ni suñu magistrat yi am nañ ko ci mbirub mërs muy mbirub sàkk ni ni mel itamit décision gi day wone ne njaaxanaay gu juge daal di tëddee ak indépendance de la justice sénégalaise mbokk yi mu nekkoon leeral dong ci mbirub accusation de corruption de jeunesse ana lan mooy loola lu indi loo la ñu faram fàcceel leen ko ci leral tv leral point net